merci d'être avec nous ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média exactement 13h30 mooy euh, doog jot bonne fin d'année tey le 30 décembre suba le 31 décembre euh, on va souhaiter un bon natif bon anniversaire aux natifs de ce jour euh, tey 30 décembre am na ay anniversaire suba 31 décembre anniversaire u Fallou Dieng la. Ah xam nga mooy sànq bu nekk bébé <laughs> de bébé de l'année. voilà donc Fallou ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom suma sëriñ la. sama xarit la baax ku bëri valeur ba noppi ñàkk ki ñaan lool xëy na boo ko jegewul doo ko xam fàllu euh, moom itam yàgg na bégal sénégalais yi li may wax keroog ni bi mm-hmm. mu ngi préparer retrouvailles ak sargal boo xamee ni da ko bëgg a sargal sénégalais yi a euh, depuis mm-hmm. euh, biri biri depuis mm-hmm, Mister Yoxosu ba ñu tuddee ko chef d'état-major des ambianceurs <laughs> donc Fallou ñu koy ñaanal gudd Fallou ku baax moom 31 décembre la ah, juddu euh, voilà on pense aux autres natifs bokk na ci Awa Fall depuis Italie mhm. euh, on lui souhaite un bon euh, anniversaire mhm. de la part de Aladji Assane Gueye Euh, ñu ngi koy ziar bu baax sunu mbokk yooyu. Mhm. et puis euh, on souhaite donc un bon anniversaire à Awa Fall en Italie et sa jumelle Adama Sall euh, nekk fii ci Dakar. Mhm. am nañu itam yeneen anniversaire ma xool ko très rapidement balaa ñuy àggali waxtaan bi ak Mouhamadou Lamine Maïga <laughs> voilà donc joyeux anniversaire à monsieur Marouba Fall Marouba nag mooy chéri Amilo. voilà Amadou Ba Fall ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. Euh, c'est la part de euh, Tata Mia. Euh, équipe yu Tata Mia bu ñu paree mi di plus bi di ngeen ànd ak ñoom Mami Diop ak Eva ci li nga xamante ni moo di waree on va en profiter pour souhaiter un bon anniversaire. Euh, grand Mamadou Ndiaye di Iba Ndiaye euh, nekk cité ndey Marie ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram euh, Pape Khan Ndiaye ak Cheikhou Ndiaye itam. Hmm. on leur souhaite un bon anniversaire et puis dem maison Brocard fekk fa Mariem ça c'est la petite sœur. Euh, ajot alimatu euh, suñu yaay ñu ngi koy ndokkeel donc Mariem euh, on lui souhaite beaucoup de bonheur moom nag mooy assistante bu ñaawul bi bu sama jigéen <laughs> Anta borom Tana Chic alors waa maison Brocard yëpp ñu ngi ñaanal Mariem on lui souhaite Euh, un bon anniversaire moom itam moins cinq mu nekk euh, bébé de euh, l'année d'ailleurs maison brocard xam naa ni fan yi foog ma jaar fa parce que brocard yu rafet yi ma fa gis ak arrivage bu bees bi jar na dem ñawlu soit fin d'année bi nii wala début d'année nga mën a gagner ak période bi nga xamante ni il fait un peu frais donc on peut se permettre de porter du lourd donc ñu ngi gërëm bu baax waa maison brocard 13h33 mooy doog a jot Mamadou Lamine Maïga tey ñëw pour ñu waxtaan ci projet bu mag bi concert yi spectacle yi uh-huh. euh, fii ci télévision Futurs Médias itam par la force euh, il faut mu ñëw live <laughs> ah euh, invité d'honneur <laughs> comme fii jaar wax la ak tuuti promo uh-huh. on va découvrir dans quelques instants exclusivité bi vidéo bu bees donc album bi defe naa lépp pare na may waaw waaw euh, en enfin fi ñu toll nii parce que ba xoolee album bi. Mhm. Euh, dañu def benn genre système boo xam ne bëggoon musiciens yu bëri des professionnels. su nekk participer ki ah. looloo tax liggéey bi yàgg. donc euh, même Ibou Ndour sax wax dëgg yàlla am na ci morceau yoo xam ne moo ko def. Mhm. vraiment ma koy remercier aussi parce que jàmbaar dëgg la mhm. booy Ibou Ndour booy bu baax la. wax dëgg yàlla c' la première fois nag ñu liggéey. ah waaw waaw la première fois mais. xam naa ko yàgg na ah. xam naa ko yàgg na toog ah. voilà donc ma koy remercier tamit ci liggéey bu xarañ bi mu def musiciens mm-hmm. euh, yi ñoom wax dëgg yàlla macha allah ñu ci joué bëri nañu mm-hmm. je crois que bu ñu matul ay vingt personnes def naa ni <laughs> donc moment bi nii ñu ngi ci moment wu mix yi ak yooyu mm-hmm. euh, donc incha allahu rabbi euh, bon bu mix yi pare rek su ko defee comme d'habitude man moom il faut que ma génne ay CD. Mm-hmm. même bu fekkee ne je comprends que. Mm-hmm. Euh, CD yi presque boo xoolee gars yi ñuy jënd. Mm-hmm. mais quand même ça fait plaisir. cest à euh, parce que dafa dafa am solo quoi parce que nice na loolu dugal ci net bi et tout ça. Mm-hmm. mais tamit bon sa CD parce que euh, œuvre lu quoi. Ah, waaw CD waaw waaw ba comprendre gis naa ni ci dëkk yi ngeen nekk. voilà commencé woon commencé nañu génne waat. bien sûr mais dañuy euh, par exemple. mais mais ñooñu dañuy topp affaire bi. dañuy jënd quoi dañuy jënd. mais incha allah. Mm-hmm. dinañ ko génne. Mm-hmm. ci nu mu gën a rafetee su ko defee defee sénégalais yi déglu ko et tout ça ah, euh, donc projet la yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, projet bu rëy la liggéey bi ñu nar a def incha allah mhm. euh, comme ni ma ko waxee du lépp lañ mën a wax mhm. waaw am na yoo xam ne daal dañuy jëf rek mhm. waaw mais waxtaan bi tamit dina ci am solo su ko defee gars yi xam fi ñu bëgg dem mu nekk yenn yi nekk ay surprise parce que surprise dina bëri mu nekk mais mais ñëw bi li ma bëgg a xam mm, mm. da fi yàgg wala doo fi yàgg. waaw loolu tam c'est bon à savoir ah, liggéey bi moom lu mu laaj rek incha allah euh, je vais le faire. incha allah waaw sincèrement bu laajee ma toog euh, un an pour liggéey sax damay toog un an liggéey. Mm-hmm. parce que dem kër ga wax dëgg yàlla dem dellusiwaat. rapidement loolu du dara. mais moment bi ñu nii nii sincèrement. ñu ngi concentré wu ci liggéey bi waaw waaw maa ngi fii. Euh, ñu ngi ci liggéey bi. Euh, te yi ñuy pare euh, mënaguma tout de suite dellu. Mhm. kër ga. Mhm. waaw il ñu liggéey ci lu bëree bëri. Mhm. parce que liggéey bi bëri na. ci liñ nar jëm. donc bu neexee yàlla côté boobu moom ku yeboo xelam daal ci moom. dinañu déglu titre de bi. waaw avant album bi di génn. parce que uh-huh. tey loolu moo la fi indi. bien sûr on va découvrir Euh, ci euh, Midi Plus bi. Uh-huh. mais yan thème nga euh, nga nga nga ci album bi. thème yi bëri na thème yi bëri na thème yi su ma la waxee ne la. Hmm, album bi bokk na ci album boo xam ne bii sincèrement. Euh, thèmes yi xam naa ne bés bu génnee parce que du ma mën a wax lépp. mais xam naa ne bés bu génnee bu neexee yàlla sénégalais yi jugeel seen bopp. Euh, parce que cette fois-ci dama dama dama liggéeyandoog ay nit yow mooy li ma wax sànq rek quoi xam nga Mbàkke dafa nekk koo xam ne. Euh, li muy def dafa dafa complet quoi sincèrement ma xaw ma woon ni. loolu am na ci dëkk bi quoi ah comprendre nga donc euh, thème yi bëri na thème yu am solo la euh, yi maa ngi ko jëmale ci euh, ci xale yi xale yi nga xam ne bii dañu soxla liggéey xale yi nga xam ne ñu ngi jël gaal yi di risqué ay yoo xam ne juste bu dimbali seen ay waajur ah, ah. parce que y a dix morceaux dix morceaux yëpp bu ci nekk thème bu ci nekk rek thème bu am solo la Euh, thème bi nga xam ne bii nag euh, moom laay woy suma rak suma xarit Lat Diop. Mhm. Euh, moom laa defal gars yi exclusivité voilà pour gars yi déglu ko mais c'est juste woyal sa xarit. Mhm. comprendre nga woyal sa xarit quoi waaw su ma neexoon sax mënoon naa ko def clip boo xam ne bii uh-huh. dañuy day toog nii ma toog nii uh-huh. may woy parce que euh, awma loolu rek laa ko mën a fayee xam nga nit euh, euh, xam nga gor am na yoo xam ne voilà donc muy suma rek suma xarit uh-huh. te moom yàlla xam na ko ay affaire ku ko sax moom da cee sawarul <laughs> maa ko nekkoon rek ah bi yoon moom il faut moo <laughs> voilà voilà <laughs> Bon, il est comme ça, c'est il est naturel, il est comme ça. Donc vraiment Euh, morceau bii ngeen nar a seetaan ni mhm. euh, clip bi. Mhm. Euh, man ak moom la quoi. macha allah waaw moom ñooy waxtaan. moom xam na yow xam waaw waaw voilà jeex na waaw du clip boo xam ne bii dañu xam nga yooyu yëpp dina ñëw ah. parce yëpp mën nañ ko clip. Mhm, waaw possibilité yaa ngi fii pour def ko et tout ça. mais bii ni moom spécialement maa ko def mu def benn mu nekk affaire bu simple boo xam ne bii maak suma rek suma xarit la. macha allah waaw ñun ñaar xam. donc on va découvrir ensemble bu pare ngeen <laughs> ñun pare nañu pour euh, découvrir en exclusivité Mamadou Lamine Maïga <laughs> euh, jëlëp woy Euh, di ci euh, waaje génne album mais tey spécialement mu ñëw euh, pour présenter ñu video bu bees bi way bi nag bu ngeen ko découvrir léegi après di ngeen am possibilité mu disponible ci YouTube bi par exemple comme ça ngeen mën di ko télécharger gis nga yi ñu jot a déglu yëpp rëw sutura <laughs> ak yeneen œuvre yoo xamante ni may nga bàyyi na ko fi mm-hmm. woy amul rit ba tey te mm-hmm. ay woyam dafa dugg daanaka ci classique bu musique sénégalaise c'est l'un des plus grands artistes de ce yàgg ñu bégal euh, bégal ay génération yu bëri ca ba ñu nekk tu tànk ba tey moo tax bu defaatee retouram euh, di waaj a génne album tey mu génne clip bu bees clip boo xamante ni mooy annoncé album bi ñun dañ ci kontaan donc ce sera pour le bonheur euh, de tous les mélomanes qui nous regardent ce midi ci télévision Futur Média donc li ñuy def rek mooy bu dee équipe yi ci ginnaaw pare ngeen Apulaay ñu découvrir mm-hmm. clip bi en exclusivité ci télévision Futur Média Mamadou Lamine Maïga <laughs> en tout cas euh, lii neex na euh, te day annoncé album donc nga woy ci sa rakk woy ci sa euh, xarit mm, président Lat Diop ñu ngi koy ndokkeel bu baax eh, lii <laughs> daanaka lu ndaw aussi uh-huh. ci li nga liggéey ci album bi ah, bien sûr beneen beneen affaire la quoi waaw ah, ah. bi mën naa ni maa ko arrangé uh-huh. ma mélodie yeeg lépp quoi tellement que dama amoon envie defal ko ko quoi mm. waaw parce que dama ko ko yàgg wax mais comme moom lu yooyu bëgg ko Euh, ma ne non attends ma arrangé mélodie harmonie yi et tout ça mm-hmm. euh, vraiment ma ci am benn mbégte bu nice parce que euh, lii rek laa doon ñaan yàlla mm-hmm. defal ko lii mm-hmm. waaw Lat Diop man lii rek laa doon ñaan yàlla defal ko lii ah, parce que parce que la am waaw suma musique la am waaw suma baat la am donc moom laa xa mën a vraiment defalee li di ko gërëm encore di ko sant vraiment di am mbégte bu rëy ci moom. Mm-hmm. te fu mu jëm yàlla na fi yow yàlla jublu. te lu mu yootu nag incha allahu rabi dana ko jot. incha allah ci kàttanu yàlla. voilà <laughs> donc euh, bi neex na. noo gisee musique sénégalaise musique gu démb ak euh, bu tey seen jamono. Mm. ci ci ci bi ngay nekk. waaw ak léegi am na am na différence. waaw bu rëy sax am na am na différence ndeysaan am na différence boo gisee sax ma ne ndeysaan. Mm-hmm. Mm, parce xam boo tey jii nii boo toogee ma ne maa ngi studio ça fait deux mois wala sa fait trois mois. mais après sax xëy na da nga ne mais nu mu demee noonu naka la possible. et temps au temps yooyu lañ doon def. temps wu cassette. mais da ngay def studio ay deux mois. da ngay répété ba pare. mais bon malheureusement léegi bon ak technologie bi mën nga def ay vingt morceaux par jour euh, c'est dommage nag uh-huh. mais booy talent ñu ngi fi ah. mm-hmm. am na am nay talent mm-hmm. mais problème bi mooy facilité bi ñu lay defal mm-hmm. machine bi facilité bi mu lay defal dangay wax sax parce que yéen seen jamono seen jamono dafa yooyu amul yooyu moo doon talent moo doon ah, ah, ah oui da ngay da amul machine mais léegi man sax su ma neexee way bu machine bi defaraat defaraat rek mu neex bien sûr da ngay wax mooy sax da ngay wax rek. su ko defee machine bi ajusté la. jubbante la mu mel ni comme si yaa ngi way mais loolu nag malheureusement dafay rey suñu suñu musique. Mm-hmm. sincèrement. Mm-hmm. Euh, waxuma ko pour dara parce que xam nga nit moom am na yoo xam ne boo koy wax da nga koy wax rek te yàlla tax. Mm-hmm. ku bëgg def. ku ci bëgg a topp nga topp ci ah, ni ko nekk nag bon yaa moom sa bopp mais vraiment su ma sañoon suñu musique bi ñu gën ko fonk parce que musique métier la euh, parce que doguma la longévité nag mais mu ngi aajo ci talent mais mais dëgg la waaw mën nga euh, def yi xew xew. Mhm. mais mu nekk genre Kleenex. mais mais voilà. jëfandikoo pare sànni. pare sànni par contre quand tu as le talent. mais mais mais mais lu dangereux la loolu. quand tu as le talent écoute mën nga def 40 ans de carrière. bien mais mais du dalul sax. du dee quoi xam nga xam nga affaire yi bu nekkee sa deret. Mhm. say œuvre du mës a dee. Mhm, waaw parce que am na woykat yoo xam ne yi ba léegi seen i yàlla jëlee leen fi. ci suba ñu déglu par exemple rëwrës rëwrës xam nga rëwrës morceau ba tey quoi xam <laughs> nga sutura par exemple yoo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa manqué quoi dafa manqué mais du xale yi duñu def rek lu di leen di ñaaxaat rek mm-hmm. di leen di ñaax parce que mënuñu leen forcer mm-hmm. euh, mais mais dafa am solo jàng métier bi mm-hmm. waaw waaw nga wàcc sa bopp rek ne xaaral ma fexe ba nu ma mën a jàngee affaire yi parce que boobu noonu mu. est-ce que ñoom xale yi am nañu possibilité aussi jege leen yéen grand yi. man de awma problème boobu sincèrement quoi te xam naa ne grand yi tamit aussi euh, boo déggee ma ne grand yi ku mel ni euh, Youssou Oumar Pène euh, Euh, ndeysaan dem si yàlla suma grand con yàlla ko yàlla a ci àjjana firdaws yi nekkoon suma mag ju baax ma ciy profité sax waaw parce que suma suma mag la woon mhm. suma xarit la woon mhm. waaw waaw suma suma dama ko mës bëgg moom waaw dama dafa doon jógee tournée temps yooyu mi ngi doon tëgg cosaan li may wax yàgg na euh, temps yooyu Bamba Touba mhm. bu ko bu ma musaan dugg ci boîte bi rek euh, su ma séenee ma ne ko grand da Bamba Touba bi da ko joué pare mu ne ma ah moo nga xam naa il faut mu tëggaat <laughs> <laughs> waaw su ko defee daf ma doon jouer Bamba Touba spécialement pour man mooy morsom bu nice bu Bamba Touba Bamba Ndiarème donc vraiment euh, di di di di ko di ko vraiment ñaanal euh, vraiment di xamal tamit sénégalais yi ne grand boobu noonu euh, li mu li mu li mu xam ci musique ak li mu galère ci musique wax dëgg yàlla tey ci fierté la ci sénégalais yi parce que bu dee parole bu dee bu mën a woy et tout ça macha allah bàyyi na ko fi te ay œuvre am du mës a dee nag mm, mm, mm. comprendre nga affaire yi noonu la war a demee quoi c'est-à-dire nit ki moom waroo nax sa bopp mm-hmm. waaw waaw lenn rek moo fi mën a nekk ñu waxtaan ak xale yi. ah man de jii xam naa ni man aw ma problème boobu yaakaaruma tamit yeneen grand yi am problème boobu. xëy na peut-être problème bu jot rek. waaw mooy am ak yooyu xëy na problème bu jot la. mais tey jii vraiment lii ñuy ñaxtu nii bu ñu sañoon mu jóge fi parce que nag musique bi bu demee ba ñëw teg ko Kleenex. waaw li nga wax noonu parole bu doy waar la. Mhm. loolu woy la sax. Mhm. Mhm. waaw woy la ko parce que. parce que fi mu nekk jógu fa ba tey. parce que Kleenex dafa doy waar ah. wallaahi wallaahi jëfandikoo donc loolu baaxul est-ce que yaa ngi yaa ngi jëfandikoo euh, je sais pas jumtukaayu xarala yu bees yi réseaux sociaux yi par exemple. Euh, sama Facebook Twitter affaire si Facebook maa ngi koy euh, utiliser. ak suma page fant bi may ubbi nii. mais xam nga lépp looy def rek il faut faire doucement. Ah. Euh, ba pare xam ci li ngay dugg lan la c'est important parce que réseaux sociaux yi ak euh, euh, xam nga technologie bi toll na foo xam ne mm-hmm. day defar di yàq waaw man dama bëgg rek si lu may dugg rek mu nekk luy defar mu nekk lu rafet loo xam ne mm-hmm. yow boo ko seetaanee da ngay bëgg ba da ngay jooy jooyu mbégte mm-hmm. comme ni ma lay seetaane des defaa ma seetaan la nga nga di way nga ngay jooy ma ne oh xoolal booy bi way mm-hmm. xam nga su damay kontaan mu leer ma ne ma yow lii jàmm la ko jàmm la donc réseaux sociaux yi euh, actuellement nii dinañ ci dugg nag waaw waaw fi ñu toll nii lu nekk ci cadre technologie bi loo xam ne ni daal. Mhm. nit ñi ñu ngi koy utiliser. Mhm. Euh, cette fois ci Mbaye da koy utiliser. voilà parce que dafa ah, dafa parce que xam naa ne il faut il faut ñu def ko. donc am na ñoo xam ne ñi loolu ñoom ñoo ko nar a liggéey. Mhm. Euh, ñooñu dèjà ñi ngi seen ñi ngi xaar. seen seen heure jot. ñu ñu dugg ci euh, dugg ci zone boobu quoi. donc yooyu yëpp bu neexee yàlla dinañ on va le faire ci projet bi. voilà ci kàttanu yàlla ñu ngi jeexal 2021 y a eu actualité. Euh, yu jot a def buzz. Euh, ci internet ci réseaux sociaux yi moo tax bu ngeen fàttalikoo ci lañu leen créel euh, émission bi di li ci internet bi tey nag mooy numéro bu mujj ak moom Mamadou Ndiaye qu'on va retrouver d'ailleurs tout de suite bu ko defee mu présenter leen dernier numéro bi bale. maa ngi lay maa ngi lay ziar bu baax El Hadj di ziar sa invité tey. sa invité bi nag génération bi ñi nga xamante ni mën nañu wax nii ñi ci ginnaaw du génération internet bi quoi ñoom ñëpp ñi ngi réagir ku ci nekk di ñu envoyé message ñenn ñi sax ñi ngi naan seen playlist ba tey Mamadou Lamine Mayga moo ci nekk. wallaahi bari na ci ay fans vraiment. Euh, am na ci benn fii ci télévision Futur Média. Uh-huh. muy euh, Cheikh Sadibou bu daf ko ku suba léegi mi ngi envoyé bu rédaction. waaw ci suba léegi mi ngi ñuy envoyé message nee na fan sam la invité tey. non ne ko tey autographe ne ko tey dinaa may photo ak Mayga. mi ngi noonu ah, autographe sax la bu émission bi jeexee mu ñëw photo ak Mamadou Lamine Mayga. mi ngi noonu mi ngi noonu. <laughs> allez après après le tampon ñu bàyyi la nga dem ak euh, téléspectateurs yeeg internautes yi. jaajëf. ngeen woote ci 77. 615 62 49 wala 77 714 20 12 pour point de vente bi nga xamante ni ibbi nañu ko euh, fi nga xamante ni moo di euh, Tëngéej euh, ca station Aden ba d'ailleurs tey ci guddi en deuxième partie de soirée. Mhm. dina joxe ay information yu am solo ci journal du Grand Bal mën naa ci ànd ak bijou si Mamadou Ndiaye à l'année prochaine incha allah. ba déwén incha allah incha allah à l'année prochaine eh, ñu ngi lay gërëm bu baax. <laughs> merci ñun itam on va finir cette émission Mamadou Lamine Maïga moo nekkoon. invité bi balaa ñu leen di bàyyeek euh, Eva Tra ak euh, euh, Mami Diop ci li nga xamante ni moo di wareef kepp si itam je pense qu'il se prépare comme chaque jeudi comme moom mooy ambassadrice su yi nekk ci diaspora bi mu ngi leen di préparer thème yu am solo jëm ci dundinu sénégalais yi nekk bitim réew may gaa ngi woon Italie def na fa ay at donc du coup Kebs Thiam vous accompagnera tey ci après-midi bi sinon tey ci guddi je reviens vers 20h30 ci li nga xamante ni moo di journal du grand ga euh, clip bi génn na nga hmm. njukkal ci sa rakk hmm. album bi di waaj génn ci 2022 hmm. bi prévoir nga ay spectacle euh, prévoir nga ay soirée parce que il faut que sa fan si nag def retrouvaille ak yow ah bien sûr bien sûr non ñu ngi loolu mënul ñàkk waaw sincèrement ñu ngi loolu moom il faut ñu xam loolu que cette fois si Euh, dina mat sëkk daal. Mhm. incha allah euh, mhm. dinañu dina mhm. euh, dinañu jouer ci ay places yoo xam ne wax dëgg yàlla dina doon ay surprise. incha allah ay vraiment orchestre bi taxaw ñu ñu ñu jouer def aussi tournée nationale ak yëpp daal. incha allah waaw sincèrement bi daal. rak liggéey bu am solo ngi ci ginnaaw. incha allah sincèrement. di la di la remercier. di remercier Futur Média Futur Média bi yëpp. aussi euh, nuyu suma njaboot. Mhm. suma famille. Mhm. Euh, lu ko commencé ci madame Guèye Diatou Maïga. Mhm. ñoom Ami Maïga ñoom Rama Sarr sama njaboot gi. Euh, moom frère Fodé Omar Guèye suma goro. di nuyu famille may yëpp quoi. di nuyu ñëpp di nuyu suma soxna aussi. sama soxna leen saay. donc di leen ñaanal jàmm. di leen xamal ni rek ne affaire bi moom bu neexee yàlla. dinaa leen andil lu nice. Ah, parce que album bi ñu def nii moom xam naa ne. Mhm. Euh, du ma mun a wax parce que dama bëgg gars yi. mu nekk surprise mu nekk surprise quoi. man album bi c'est ah, vrai que yàkkamti naa ah, mu génn. mais man yàkkamti naa sa spectacle. waaw yàkkamti naa sa soirée. yàkkamti naa sa sa concert bu mag quoi incha allah bu neexee yàlla ci janvier bi nii. Mhm. du ma wax nag ban date pour le moment. parce que du man maa ko war a wax. Mhm. mais bu neexee yàlla. Euh, may gi dina jouer Euh, vraiment dinañu joué ci ay place yu bëri. incha allah dinañu waaw comme comme ni ko gars yi bëggee rek. man maa leen ko gën a yàqamte. incha allah <laughs> mu waaw donc yàlla nañu ci ci yàlla yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin amiin vraiment di di remercier ñëpp. Euh, di remercier encore euh, Mbacke Dioum. Uh-huh. vraiment di def liggéey bu xarañ. yi eh, di leen nuyu bu baax a baax di remercier aussi tamit sama rakk Koutia. Koutia waaw parce tey teeru nañu benn teeru boo xam ne bi. <laughs> sedd sa xol

tey liñ ma teeru teeru bu graaw euh. donc vraiment kontaan naa trop di nuyu Bouba Ndour aussi euh, famille bi yëpp mhm. vraiment donc di leen ñaanal jàmm mhm. yàlla defal ñu atu 2022 bi aussi nekk atu jàmm inchaallah yàlla teggil ñu nattu yi inchaallah waaw xol yi doon benn aussi inchaallah waaw loolu tamit buñ ko defee xëy ñàkk yàlla jàppale ñu inchaallah inchaallah <laughs> yàlla baax na en tout cas <laughs> ah, merci euh, ci disponibilité bi eh, ak eh, ñëw bi nga ñëw seet suñu at bu jot saa yoo ñëwee Sénégal seet suñu <laughs> yeewu leen ba tey su ñëw ak midi bi <laughs> nga bokk ci invité yu mujj ci 2021 mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bi euh, ñun nous sommes de tout cœur avec toi parce que ay mélomanes lañu yàgg nañu enjoy sa musique donc album bi dina génn bientôt bien sûr album de dix morceaux ci télévision Futur Média merci en tout cas ba pare ba pare ba pare bëgg naa ñu def sa sa sa sa am na émission bu nice boy euh, eh, vraiment eh, il faut ñu def ko dóor fa kër gi parce que nice na quoi <laughs> loolu kay par la force la. merci beaucoup man dama bëgg talent yi et grand yi voilà. ñun xam nga bu ñu nekkee quoi dañuy euh, dañuy mën a waxtaan. voilà loolu moo taxoon boobaa ñu jouer musique. incha allah merci Mamadou Lamine Maïga. merci à toi euh, maa ngi nuyu Ajaratu Madaba. voilà Madaba euh. su ma gisee ay. Mayga ak ñi nga xamante ne yàgg ci musique dama koy xalaat moom Maada nekk nit ku baax nekk jigéenu jàmbaar <laughs> waxam bëriwul coowam bëriwul ci rukkam rek la toog dem màkk ba ñëw donc Maada Ba euh, je pense à elle maa ngi maa ngi xalaat itam suma beneen jigéen sama xarit euh, di Ami Mbeng Ami Mbeng itam qui a beaucoup de talent waaye moom itam euh, bi mu màggee doomam papi màgg na bay way pipaana la ah tudd <laughs> doomu Ami Mbeng mu ngi def carton bu ah, extraordinaire nit ñaa ngi reprendre ay woyam di hmm? euh, <laughs> euh, ñu ngi koy bégee fu ñu euh, toll hmm? Hmm? di gërëm tamit waa Chain Lady Chain Lady nag je le rappelle mooy tey bi nga xamante ni jigéen bu ci maintenir bëgg a maintenir taayam bëgg a nekk taay fin bëgg wàññi biir <laughs> mën ngeen jënd li nga xamante ni moo di Chain Lady pourquoi ma leen di gërëm parce que Chain Lady ci boppam daf ma may ay tey yu bëri ma jot ko may ay jigéen yoo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo te ñu ngi gis résultat bu baax ak euh, tey boobu la nga xamante ni mooy Chine Lady alors su fekkee da ngeen bëgg a am taayu Viviane par exemple mën ngeen woote ci 76 636 33 33 wala 75 524. Euh, 45 45 donc man Chine Chine Lady euh, sama sponsor personnel la ñu ngi leen di gërëm bu baax. <laughs> Euh, di nuyu tamit euh, Mami Boy ak résidence Le Baron nekk Lac Rose personnel bi yëpp ñu ngi leen di nuyu suma yaay itam elle nous regarde mooy maamu Fallou ñu ngi koy ndokkeel Mami Boy merci ci jàppandal gi taalibe Serigne Fallou yaayu Serigne Fallou. di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Ami Dieng yaayu Omar Ami Dieng madame Diallo borom boutique princesse. Sophie donc monsieur et madame Diallo Amadou c'est c'est mon grand frère depuis New York euh, soxnaam euh, yaayu Omar Ami Dieng moom tamit ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak personnel bu princesse euh, Sophie suba vendredi incha allah 31 décembre mooy dernier numéro Midi Plus bu 2021 Oustaz Pape ann moo nar a nekk invité bi daañu waxtaanee euh, ki nga xamante ni moom la ñu tuddee borom barrière or ba ca Médine et puis suba bu ñu euh, dee jeexal am na yu am solo yoo xamante ni Oustaz Pape Anne euh, bëgg na ko indaale ci Midi Plus bi merci à toute l'équipe de production dirigée par Bouba Ndour produit cette émission ñu ngi gërëm bu baax Apulaay mi nga xamante ni moo ko réaliser tey Corombaar Ndiaye kenn amul sa fay ñu ngi lay gërëm bu baax ci ginnaaw la nekk di liggéey liggéey bu am solo su ma waxee rek mën ngeen foog ni li ma ko bëgg a tax mais merci en tout cas euh, ci euh, lii nga nekkee ñun ci midi plus bi rédaction bi itam ñu ngi leen di gërëm bon appétit et à demain 31 décembre incha allah.